Donc, alaikum, euh, journaliste yi alaikum. Euh, waa Sénégal Nek heure bi wala waxtu bi dañu teewlu ci conférence de presse bi nga bureau politique u Pastef les patriotes m'ont organisé Liko waral moy dañu il y a deux jours l'ex-procureur de la République, Bassirou Gueye, annoncé woon conférence de presse puisque affiche yu ñu gis xamuñu woon ci lan la war a wax jàppoon nañu ne xëy na dina wax lépp ba mu des ci dossier boo xam ne moom moo ko yore woon en tant que procureur de la République doxal ci doxalin gu ñaaw yim ci doxal ñu toog ba sànq dégg ko mu wax ci wax bare bare bare bare sax ci dossier bi wax ñuy donc ci objet conférence de presse maanaam li waral conférence de presse bii ñu organisé mooy li ma doon wax réaction par rapport ak sortie ancien procureur de la République Serigne Bassirou Gueye waaye laata ma ciy egg ni ngeen ko xamee dimanche passé président Ousmane Sonko ak Pastef les patriotes ànd ci ak alliéem bu ñuy nekk ci Yewwi Askan Wi dañu organiser méga Kër Massar doon ci rendre hommage une grande dame un militant de Pastef les Patriotes di Mariama Sagna doon ci delloo njukkal tamit jàmbaar yi nga xamante ne ñu ngi ci kaso yi jamono gii te lenn teyu leen fa dul prise d'otage politique ak dossier yu ñàkk fayda yoo xamante ne moom lañu leen jàppee kaso ba fi ñu toll nii ñu nekk fa di ko dund ak dignité ak honneur ñu di ci doon ñaanal tamit jàmbaar yi daanu ci waaru yi nekk ay shahid ay martiru démocratie Sénégal te 2021 rek fukk ak ñeent daanu ci 2022 ñett daanuwaat ci méga meeting boobu malgré mu fekk période grève illimitée transport public yi la maanaam ñi bëggoon a ñëw yépp bare na ci ñoo xamante ne am nañu gàllankoor am oto bu leen andi ba foofu ku ne gis na mbooloo mi fa nekkoon nu mu toll ñuy jaajëfal askanu Sénégal yépp bi wuyu si woote président Ousmane Sonko ak Pastef les patriotes di jaajëfal alliés yi ñu ñëw feewlu si di jaajëfal tamit ñépp ñi nga xamante ne ñu ngi woon à la manœuvre pour que succès bi ngeen gis ak taar bi ngeen gis ci bés boobu am ñuy delloo njukkal taxawaayu peuple Sénégal askanu Sénégal mi nga xamante ne wane na ci mobilisation boobu bu mu def ci période grève transporteur ak suñuy militants yoo xamante ne bu ñu amee oto bu ñu leen indi dañu leen wàññi entraver seen liberté de circulation et de et de réunion malgré loolu yëpp. askanu Sénégal woné sen détermination xeex lepp luy instrumentalisation justice lepp luy liquidation en série d'adversaires politiques bo xamantene régime président Macky Sall bu mu fi nekkee ba léegi loolu la ñu jàng loolu la kon gàcce ngalaama askanu senegal gàcce ngalaama patriote yi nga xamantene ne taxaway ci bés bobu rafet na ko waxé sànq dañu ci doon ñaanal di rendre hommage ñi daanu ci yoonu xeexu démocratie Sénégal pour mu continuer taxaw doonte ñu ngi def lépp ci régime Macky Sall pour salfaañee ko ñu jël ci place boobu nga xamante ne symbole la ndax 6 octobre 2018 la ñu defoon suñu meeting foofu ki nga xamante ne moo nekkoon responsable organisation bi di. soxna Mariama Sagna yal na ko yàlla yërëm taxaare ko aljana ay samba booy topp ko jéem ko sàkku jaare fa xoj ko ba mu dee 2018 6 octobre 2018 kan la fekk mu nekk procureur de la république nañu fàttali Sénégal ne sëñ Bassirou Gueye mii jàkkaarloog askan wu tey di lox kenn xàmmewu ko mënul xam lu mu wax mu ànd ak tey ak dal ba mu soxla ne dama ànd ak xaal dama ànd ak dal xaal àndut ak dal ku ànd ak xaal te dal boo koy wax xamuloo li nga nekke waaye xaal da nekk ci xaal wala nga dal nga nekk ci dal mais nekk ci ànd ak xaal nekk ci dal ku turmante rek mooy mooy mooy mooy wax waxu kasaw kasaw yooyu te looloo ko dal ku ne gis na ko tey xam ne kii doomu aadama la boo xamante ne nelawam yàqu na ndax conscience am mu ngi koy topp te yaakaar naa ne excès de zèle bu mu wane ci dossier Adji saar ci bu mu fi nekkee procureur de la république ak tekk-tekkaaral bu mu àndal ci dossier Mariama Sall Mariama Sagna suñu rassemblement bii ñu ko doon defalee hommage am na lu mu yëkkatiwaat ci xelam ba perturbé ko kon li ñu bëggoon rek fàttali Sénégal yi mooy le 22 avril 2013 la def sëñ Bassirou gay procureur de la République ba le 22 novembre 2021 kon mbirum Mariama Sagna bu muy xew fii la ko fekk ba bu muy dem fii la ko fekk te taxul mu gaawantu ci gaawantu gu mu joon ànd ak instruction dossier Sweet boté bi nga xamante en 72 heures fexe nañ ba malanu malaanu kiiraayu président Ousmane Sonko mais kan mooy sëñ Bassirou Gueye kon moy ki nga xamante ci dossier bi nga xamante ne suñu militant buñu sif ray ko dafa tok tekk-tekkaaral beneen dossier bo xamante Sénégalais yépp xam nañ ni waxu kasaw kasaw la waxu tooñ yëfu tooñ la yëfu ma tay la Komplo bo xamanteni ñepp la ci kanam ñepp la ne fang fangaral sëñ Bassirou Gueye mom moo doon wax ak sénégalais tay bëgg sénégalais am luñ ko jappal may wat benen dossier parce que bu ba nekké di leen lim sax day bari yeen nga ngi fàttalikoo affaire 94 milliards bi nga xamanteni président Ousmane Sonko gannaaw bu mu ci défé liggéey bu mucc ay bu mu ci def moko ko jël djébal ko IGE djébal ko procureur de la république muy Bassirou Gueye mi jéebal ko nag OFNAC nag dégg ngeen ñuy wax ne couleur yi sax couleur Pastef la kon OFNAC boobu bi sañ Bassirou Gueye génnee ne ñun dañu enquête huit mois moom tamit dafay toog enquête huit mois enquête am sottiwul ba enquête nag sotti ba OFNAC jéebal ko rapport bi deux mille dix-neuf ñu ne li président Ousmane Sonko doon wax yépp ci ñi doon jéemal l luubal quatre-vingt-quatorze suñu xaalis ñun Sénégalais yi yépp dañ ko war a dañu war a jël ñoom Mamour Diallo ak ñu mu ci àndal yóbbu leen ci yoon sëñ Bassirou Gueye defu ci dara kon bu ma taxawoon ci ñaari dossier yooyu rek ngeen xam ne ku doon wax ak sénégalais yi bu dee conscience am moo koy topp di ko dàqee ba mu yaakaar ne mën na taxaw ci kanamu sénégalais yi wax leen lu leen neex ñu jàppal ko ko nax na boppam moo tax bu ngeen seetloo communication di ngeen ciy remarqué ñaar ñaata yoon la wax ne ñëwuma fi pour charger ñëwuma fi pour charger ñaata yoon la ko wax ci conférence de presse am loolu mooy lu mu ñu bëgg nëbb waaye xelam a ngi koy génne ne dafa ñëw pour charger yàlla def nag bu muy chargé yëpp lu mu taqal boppam moo ëpp beneen bi mooy rapport d'enquête interne gendarmerie bi dinaa ci ñëwaat léegi jéem na koo jéem a soofantal ba jékki-jékki sax ne wóoru ko sax ndax rapport bi am na wax ne dem ba ca biir mu wax ne rapport bi sax yéena ko jox solo ak président Ousmane Sonko waaye amul solo ci enquête bi loolu kuy préparer opinion bi pour bu rapport bi génné opinion bi baña xam lan la def ci biir dossier bi motax mo rapport bi amul importance mais rapport bo xamné ne la ndax amna nga ne bu fekkee na amna na supposons que amna nga yow ya dem dugat ci rapport bobu di wax li rapport bi wax li fa commandant Abdou meng wax li capitaine Touré wax bu rapport bi amul kay yow amoko ko ne rapport bi wóoru la ndax amna di dugg ci rapport bi di xuus di wax li di wax nga xam ko li di waxul nga xam ko kon bu ñu de toppaatee moom lu mu wax dafa ñëw di miim njëkk a wax ne mosul woon jóg pour arrêter président Ousmane Sonko waaw sénégalais yi ndax dañoo fàtte ne que président Ousmane Sonko ñu ngi ko convoqué woon le 8 février 2021 le 7 bu def conférence de presse mom Serigne Bassirou gay fatali nako ne du dem wuyu ji tank yekati nu malanu kiiraay muy immunité parlementaire ne bes buñ ko yekate dina dem wuyu ji waaw bu mu waxe lolu sénégalais yi ne ñun sax dañuy ñew sa kër pour ñu respecter sa droit respecter sa immunité parlementaire bi nga xam ñun askanu Sénégal ñoo la ko jox benn fan la ñu mujjee du yëkkati nañu maalaanu kiiraayam lu tax defuñu ko woon avant ñu koy convoqué kon bi ñu ko defee door di koy convoqué waat xamoon nañu lu ñu def ñoo ko tey bi ñu ko doon convoqué te yëkkati nañu maalaanu kiiraayam mu ne leen yëkkati leen sama maalaanu kiiraay balaa ngeen mooy convoqué ñu delluwaat yëkkati ko loolu mooy wane ne ñoom xamoon nañu ne que dañu war a yëkkati maalaanu kiiraayam laata ñu koy convoqué lu tax defu ko woon avant première violation deuxième violation bi nga xamee ne da ko war a def borom ne tant que defu leen ko duma dem wuyu ji loo xëyee andi fa ay policier ba mu fees del ñuy sànni ay grenade lacrymogène ba koy sànni ci biir këru jàmbur bu nekkee ñëw woon pour arrêter ko lu tax nga def loolu bu mu la waxee ne kay du yëkkati yëkkati leen maalaanu kiiraayam nga xam ne di nga koy yëkkati mais jour bi ñu ko convoqué looy uti këram ak ay camion gendarme ay policier di fa sànni ay grenade lacrymogène ba premier émoti yi lañ judo muy responsabilité mo kon boo waxé né du won arrêté askanu Sénégal mo ci amul lolu mo né kon pexem lu koy firlé moy bi président Sonko togué bañu yëkëti malanu ki rayam ci 48 heures xawmu 72 heures mun né damay dem wuyu ji convocation bi ñu jëm ko xalal yoon bëgg jaar lo fo xamantene ay nerf bi kese fa kon ñu bañ ne ko bu fa jaar moom mu ne kenn du ko xalal fu mu jaar mais arrêté station bu ñu bëggoon arrêté la woon nañu ko buñ ko arrêté luñ ko jiiñ trouble à l'ordre publique participation à une manifestation non autorisée citoyen sénégalais buy dem wuy ji yoon yow xaar ko ci heure bi nga ko convoqué mais du yow yaa koy ne fii ngay jaar wala fee ngay jaar wala heure bi nga fay egg loolu responsabilité am la mais buñ ko arrêté ba pare arrêté président Ousmane Sonko ko taxul nga téye ko de askanu Sénégal wane na ko ñoom ñu ko arrêté woon ñoom ñoo ko bàyyi ñoom ñu defoon barricade ci buntu këram ñoom mu dee barricade seen bopp ci palais bi ñoom ñu ko dem ba yóbbu ko ci biir kaaw camp caserne gendarmerie fa fala ko askan bi génnee kon arrêté woon ngeen kay jéem ngeen a askan wi tere leen ngeen forcé arrêté askan gi jël ko ci seen loxo kon boo wax bu président bu bu bu bu procureur waxee ne jógul woon pour arrêté waxut dëgg kon bu amee benn conclusion bu ñuy njëkk a tiré ci point boobu ndax daan nañ ko jéem a arrêté mooy waaw jéem ngeen ko arrêté arrêté ngeen ko sax nag waaye askan ngee ko jël ci seen loxo bi ci tegu muy jéem mi mooy procu ex procureur Bassirou Gueye nee na dañ ko jiin falsifier PV d'enquête préliminaire gendarmerie mooy PV d'audition bi waaw ki ko ne yow yaa ko falsifié du président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko amul maqaam ak déclenché enquête interne ci biir gendarmerie loolu seen kilifa bi am sañ-sañ bi moo moo ko def enquête interne bi bu mu jeexee mu am rapport rapport boobu bu buñ ko buñ ci jotee dañu yaakaaroon du mos a génn du mos a génn bu ngeen gisee lu tax moom procureur Bassirou Gueye di jéem a discréditer capitaine Touré dinaa ci ñëwaat léegi ngeen xam ne moom lu ko waxal moo ko arrangé wul parce que tantôt capitaine Touré mu jiñ ko dara tantôt mu ne rapport bi ay agent assermenté ñoo ko def capitaine Touré assermenté wul woon kon bu waxee ne wóoru ko sax ndax PV bi am na mais mu ne nañu supposé na am na moom muy supposé ne PV ba am na ak amul donc wóoru ko mom mo xamne ke mom moom audité ko ci rapport bi kon ne ko ci mais naka la xamee Moussa général Moussa Fall audité wuñu ko bu dee moom wóoru ko ne sax ne rapport bi amna naka la xamee général Moussa Fall audité wuñu ko te wax na ko ñaari yoon ci biir conférence de presse am yow rapport bi woru na amna nga ne bu dee am na ndax amna mais yow yaangi cité xam kan lañ ci déglu ak kan lañ ci dégluwul ci rapport d' enquête interne lu sa yoon loolu mooy wane ne xam na ne rapport bi am na liñ ko ci waxal xam na ne dëgg la waaye arrangé ko moo tax mu commencé di soofantal rapport bi ku ci wax loo xamante ne arrangé na ko mu ne kooku dafa arrangé wu ko mu ne kooku dafa feebar koo xam na ne ya am na wax na loo xamante ne jàpp na lu ko arrangé na mu ne kooku moo wax dëgg loolu du jàll ci bopp Sénégalais yi wax na ne président Ousmane Sonko lu mu wax mooy li capitaine Touré wax waaye du wax lu Abdou du wax lu commandant Abdou Mbengue wax kon moom xam na lu commandant Abdou Mbengue wax moom daal xam na kan lañ déglu ci biir gendarmerie ak kan lañ dégluwul ci rapport bi xam na kan moo wax lan ak kan moo waxul lan bay wax ne ki doon ki deno ki yëgal sénégalais que rapport d'enquête interne am na et def daf koy setal di taqal ñu nga xam te ne ñoo falsifié PV yi mu ne noo non kooku lu mu wax dara du ci dëgg. Nena, ci capitaine Touré parce que li capitaine Touré di wax la japp di sofantal dafa ñëk wax né capitaine Touré mi nga waxam mënul doy kenn parce que mom gendarmerie daf ko rajé né mënatul nek gendarme mais c'est faux dem len ngeen xol l'acte de radiation de capitaine Touré ndax da ngeen gis né gendarmerie moko signé kan moko signé du président de la république moko signé Ben, ay journalistes la la décision décision conseil de discipline gendarmerie bi di ngeen nous nous nangu wuñu ça, sax ñu radier le capitaine Touré parce que que euh, il a honoré la gendarmerie par son comportement ci le dossier kon budé mo moog basi Basirou daf ci am kenn ku ku téy dignité capitaine Touré la mënul yak capitaine Touré mënul sofantal waxam té lu muy wax ni yépp moy jéma préparer sénégalais yi ba bu rapport interne bi génné parce que lu muy wax né lutax do du génn sax ñi lire nañ ko ñi nangam nag fa la mujjé ci rapport bo xamanté woru ko né amna fa mu mujjé moy rapport bi sax lu publier wuñ publier wuñ ko parce que ñi ñu ngi koy lire ñi amna ñu ko jox nañ ko nangam kon rapport bu mu doon sofantal na amul dem na ba ca biir mu nangu ne rapport bi am na gannaaw bu mu ci cité ay passage gannaaw bu mu xamee kan lañ ci déglu kan moo ci wax lan kan moo ci waxul lan dama yaakaar ne am na ay boulon yu da wàllee ci boppam ba tax na mënatul am benn cohérence leneen liñ ciw nar a teg mooy dafa ne président Sonko dafa am ay waroo ci waxu aji Sarr muy ñett am six woro ci waxu président Ousmane Sonko mais est-ce que yéen fàttaliku ngeen fi gendarmerie dégloo président Ousmane Sonko gendarmerie ci rapport d'enquête d'enquête préliminaire bi déglu président Ousmane Sonko dégluwu ko kon réflexion sur les faits bu enquêteur bi def bu dee relevé contradiction ci côté partie yu mu Qu'est-ce notamment la plaignante la ko mën def mais mënu ko def ci ko xamante accusé la dégluwu ko wala moo tax bu mu leen waxee ne dina egg ci six yooyu mu lim ko seetaanat leen conférence de presse bi limul dara parce qu'il n'a rien kon li wër wër mooy gis nga rapport bii nii du du basiiru Gueye mooy déterminer moment bii rapport bi di génn déedéet day xaar parce que nekkul ci loxoom amu ci benn sañ-sañ waaye li moom wër te wër mooy sénégalais yi ko nar a liir yépp di ngeen génn ci moom mi jàkkaarloo woon ak yéen di crédibilité di naan man j'ai fait vingt ans mosoo ma dégg lu ne déggal nañ ko ko lu ne donc bu dee en magistrat model du ci moom lañ koy xool ba ba jàpp ne moom lu mu wax rek crédit dañ ko war a jox crédit les décisions sont là nag def ko joxe joxe rapport joxe joxe rapport joxe joxe ay rapport ba sonn amul lenn loo xamante ne diligenté na ko ci ba ci 94 milliards yi dafa ci dara kooku moo bëgg érigé wu un model de fonctionnaire bi nga xamante ne fu mu toog li ko ci waroon yëpp mu ngi ko doon def non ça passera pas parcours am rafetul ci ci ci bëtu sénégalais yi moo tax amul lenn lu mu lu mu set lu mu mën a génnee ci ba setal boppam li wërte wër mooy. ci rapport d'enquête bobu bu ngeen ko liiree di ngeen gis na ki lee di que dañ ci wax ci biir que mom première transmission PV d'audition buñ ko jox lu muy wowe ay remarque di sofantal remarque yoy ñoo modifier le PV donc mom nangu na ne amna PV buñ ko ñoko jox mu def ci ay remarque mais falsification nga yaay ngoog yow jox nañ le PV fekk wo enquête PV bi delluwaat ñëwaat ci yow andi ay photo yoo xamante ne ay photo yu salte la ñu ne photo gi askanal ko salon Sweet Beauté te photo yooyu mënuñoo mësuñoo am lien ak ak salon Sweet Beauté kon yow sa observation lañ jël en compte ak yeneen ak yeneen kon moom amul fu mu jaar ba setal boppam bu leen fàtte nag que moom li nga xamante ne moom lañ ko tàqal ci rapport d'enquête bii nii interne bi ne moom la def ci procès verbalu gendarmerie bi président Ousmane ko def ko ci porte plainte man bi ma doon déglu conférence de presse am damaa yaakaaroon ne day génn ne sénégalais yi tuuma yi muy wax ne dañ ko metti mu am ay mbokk am ay njaboot am ay xarit ba tax mu génn jàpp ne day setal boppam te taqal boppam la gën a def man li ma doon xaar mooy honorabilité boobu ak dignité boobu jaral ko mu baña demander privilege immunité privilège immunité mu justice yëkkati len bépp malanu kira bi mu am ñu atama ma ci walum rapport d'enquête gendarmerie bi ndax ma mën a setal sam bopp parce que affaire bi dafa grave il devait raser les murs dafa waron di dox ci mbedd mi di laqatu tay liko dal amul ben magistrat bo xamantene bingai bi ngay prêter serment ñaan nga yalla mu dal la retrouvé wu sur le banc des accusés war di nekk di setal sa bopp te nga nekkoon koo xamante ne yow yaa topp ñu bari am na ñu bëri ñoo xamante ne moo leen moo leen mandat de dépôt ñu ngi ci kaso tëdd di xaar seen atte moom moo mujjee ñëw taxaw ci kanamu caméra yi di jéem a setal boppam te amul kenn koo xamante ne jox na ko une once de crédit parce que lu mu wax amul benn cohérence te tous les faits le lu mu wax yépp boo ko toppaatee moom day weddi boppam gën a dugalaat boppam looloo ko loolu la ko yàlla natoo ci ngoonam tey jii nii moo tax ñu ne lii dañ ko fanaanal parce que ñun dañ ci toll foo xamante ne gat sa gat sa conférence de presse 17 heures conférence de presse maximum 21 heures ay pour ay dent pour dent dafa doy bu muy wax ni yëpp chargé ñëw na pour chargé ñaata yoon ci conférence de presse am la nekk di chargé koo xamante ne amatul privilège ñëw ci ci prétoire di ko fa taqal lenn sénégalais yi ñoo toll foo xamante ne dañoo dañu dul nangu kenn koo xamante ne ñun ñoo ko teg ci suñu kaw réew de la façon la plus démocratique boobu amul benn grenade lacrymogène amul benn bel blanc dragon bu ma amoo bi fi amoon du ma moo ko moo ci doon dogal ñu mu fette loon di xeex muy sénégalais ñu la dragon bi doon dox seen kaw ba Mamadou Diop dee ci yàlla na ko yàlla yërëm kooku noonu ñu fal moo dem ba jëmi jamono nag mu taxaw suñu kanam wax ñu ne

ñooñu ñoo toog di ñu gëm leen kooku am na troisième ki ki volo ki possibilité def troisième mandat ci koo xamante ne mosul dem élection de façon fair play soit mu confisque la carte électorale soit mu confisque le fichier électoral soit mu jël carte carte sénégalais yi yi mu sànni ñu nekk jegeñaaw mu yóbbu leen wax na nim zat ñu nekk wax na nim zat mu sànni seen carte Ziguinchor corrompre processus électoral bi pour bañ rek ko daaneel kooku moo fi bëgg a nekk ak luñ ko xamee yépp ci mën a ci mën a métital sénégalais ñu toll ci jamono joo xamante ne yow da ngay reetaan ci Facebook ñu tëj la 6 mois te da ngay wax sa xalaat ci Facebook ñu tëj la 6 mois pendant ce temps ay nit di wax lu gën a garaaw foofu yépp mais ñu ngi fete ci moom dara du leen dal kooku ñu sénégalais yi sàggan nañ sàggante gu tax ñu koy mayaat doole gu tax ne tegu ko ci yoon ba pare mu nar fi toogaat enlever la limitation de mandat. y a bopam gëna gën noox sénégalais yi moo tax ñu ne gat sa gat sa parce que dafa doy sénégal gii dafa am ñu dee pour démocratie samp de parti unique à média d'état en passant par le pluralisme politique ou démocratique à la pluralité médiatique li tax ñu am sañ-sañu toog fii tey di wax loolu dafa am ñu ko fi xeex ba récemment en mars 2021 le MDD, mouvement pour la défense de la démocratie woote fukki bakkan ak ben ñent rocci ñi ñu dag sen tank ñi ñu tour sen beut nii ñu dag sen loxo ñi am ay yakuta yu bari ci sen investissement ñoñu sen dé sen gañu gañu sen handicap li ñi ñak ci alal mënul neen té lén rek ko mëna a neenal ñu seetaan ba lu ñu bëggoon mars 2021 amul ñu forcé ñuko en 2023 fekk na amna dossier yo xamante ñu ngi fofu ak ñom lu tax tey ñu war a mën a atte le dossier Sweet Beauté moo tax ñu war a atte le dossier Mariama Sagna balaa dara moo tax ñu war a atte yeneen dossiers yi nga xamante ne ñu ngi chambre criminelle ay atta ngi nii kenn attewu leen waaye yaakaar naa ne sénégalais yi taxaw nañ tem pour défendre démocratie pour arrêter cette liquidation en série d'adversaires politiques ci koo xamante ne amatul droit sax dem élection mu bëgg a tànn kan lay Sénégal di tànn pour mu wuutu ko mooy kan ba di ñu ko defal kon sorti procureur bii di sëñ Bassirou Gueye ci registre boobu kenn son je ne suis pas venu pour charger ñëw ma pour charger kenn yépp lu tax mu soxla ko di ko wax di ko waxaat c'est pour nous anesthésier cette partie de la mémoire bu koy soupçonner de venir charger mais lu mu wax ñëpp ku ne ku ko déglu xam ne dafa ñëw pour charger kon loolu lañ dul nangu tey duñ ko nangu ëllëg te képp koo xamante ne ci dossier bii def nga ci loo xamante ne sa responsabilité c'est ind assumé bu yóbboo boo nelawee mënoo tëdd boo ñëwee di organiser cinquante mille conférence de presse tamit xamal ne loolu du la du la du tax sénégalais am neneen lu ñu lay xoolaate du wax ne nu mu ñëwee wax si tey mën na ko wax ñetti yoon bu ñëwee wax ko ñetti yoon nañ ko wax fanweeri yoon wala trois fois su lañ koy xaar gat sa gat sa ak keneen koo xamante ne mu ngi ci tànku taqal doomu aadama ne xam nañu ne dara du dëgg ci luñ koy takal bi président Ousmane Sonko di genn en mars deux mille février mars deux mille vingt et un di wax li tax sénégalais yi génn xeexale ko loolu crédibilité am kese la woon boobu rapport rapport d' enquête interne gendarmerie bii nii fasalul woon complot bi boobu audio bi Adji Sarr enregistré Mamour Diallo nekku fi woon boobu audio bi ma mbay euh, ma Baye Niass MC enregistré Adji Sarr nekku fi woon boobu témoin témoin yi ñu bëri lu ñu waxoon feeñugul woon mais amul lenn loo xamante ne tey dossier boo xamante ne lépp a vide mais ñu obstiné parce que moom lu mu doon wax en kese ak yaakaar ne li ko président Sonko doon duut baaram ci liggéeyam bu mu doxalu nu mu ko war a doxal que am na fu mu ko téye revanche am heure am sone na waaye yàlla ne déet sénégalais yi ne déet te sénégalais yooyu bañoon ba toog ba génnee président Ousmane Sonko ci jafe-jafe yooyu nga xamante ne buur bu ko ëpp doole moo ko ko tegoon ba mu génn ci salle bii ne nañu accompagner le président Macky Sall mu génn mu génn bàyyil ñu suñu réew mi ci jàmm ñuy door a intervenir ci garaw sénégalais yi ñu ngi fi ba tey